ñi accompagner monsieur Sare monsieur Siré Dia politiquement c'est parce que monsieur Sare Dia monsieur Siré Dia dafa doon nit koo xamante ni si nii bari na ay fee yoo xamante ni daf ko def fii dans la région de Thiès mu doon loo xamante ni si nii buñ njaacaar xoolee gis ko bu silmaxal làmbee daj ko looloo tax ñun en tant que jeune de l'UJTL Nord ñu jël tey suñu engagement pour rejoindre monsieur Siré Dia jàppale ko fii ci liggéey bi muy def ci APR ñun nag dañoo doon ay ndaw yoo xamante ni si nii pendant 16 ans ñu ngi nekk ak suñu euh, inspecteur général monsieur Abdoulaye Wade di liggéeyandoo ak moom ci biir PDS xëy na nag di ànd nit ba xëy suba nga tàqali ko moom ci politique loolu dafa metti mais terewul li nga xamante ne si ni moom lañ sumb ñu ngi ñaan yàlla aussi mu may ñu ñu àggale ko ci jàmm ba loo xamante ni si ni yaakaar na ni suñ ñëwee fekk ko fi suñ ñëwee yàlla na fekk mu doon loo xamante ni si ni suñu njariñ la loolu nga xamante ni si nii moom lañ bëggoon a tënk ci ay wolof rek remercier ñi nga xamante ni si nii moom mooy monsieur Modou Fall remercier François Fall remercier Chérif Dia ñoom ñi nga xamante ni si nii ñoom ñoo ñu yaatal fii ba tey ñu ñëw fii di ci biir APR damay daaneel nag samay kàddu di remercier tamit jeunes yi nga xamante ni si nii ñoom ñoo nekk fële ci zone nord di liggéeyandoo ak ñoom mu am ci ñoo xamante ni ñu ngi nekkoon UGTEL am ñoo xamante ne si nii nekkuñu woon fii biir UGTL mais lépp loo xamante ne si nii dugg nañ ci suba ba ngoon saa bu leen woowee rek ñu ñëw accompagner ci vraiment suñu xol tooy na trop suñu xol sedd na trop mais nag lii ñu def nii dañ koy def avec un gage de courage parce que nu sommes des jeunes et car allah notre avenir est devant nous tey jii aussi tamit li ñuy faral di wax rek ginaar lu xëy gis kuy bojj muy topp kuy rooti. dañoo gis Siré Dia mu doon koo xamante ne si ni mu ngi Mbodia fii ñu fas na ñëw ànd ak moom ci Mbodia mi ñu doon ay jeunes yoo xamante ne si ni aussi vraiment fa ñu nekkoon kenn jéppiwuñu fa tey aussi tamit kenn dàquñu fa ñu ñëw jël suñu décision jël suñu intention ñëw fii ci biir APR liggéeyandoo ak yéen li leen ñaar aussi tamit ñi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk ñu am bras ouvert ak ñun ndax lii rek bras ouvert la ndax accueillir bi ngeen ñu accueillir vraiment sedd na suñu xol. mais dañoo bëgg mu gën a yaatu dañoo bëgg li ñuy siñ lépp deret bañ ko lal mu doon lu weex tàll ñu ñëw fi am fi ay ndam yu sedd guy ndax vraiment fañ dëkk boo gisee nag jeunes yu bari ak nit ñu bari souvent duñu engagé wu pour ñëw dañuy wax naan waa APR dañoo siis mais vraiment siis googu gisuma ko fii ndax bu ñu siisoon ay nit Siré Dia bu ñu siisoon duñu defar accueil bii ñu ñu defal kon siis googu ñuy wax man gisuma ko fii te vraiment y a pas mal de responsables yoo xamante ni bëggoon nañ ñu décrocher mënu ma du ma ay tour nag mais li may wax Modou Fall mën na ma seede François Fall mais mën na ko seede ay responsables yu bari ñëw nañ fëgg suñ bunt mais dañoo bañ tey jii nag dama daan wax François ne ko bu ñu waree ànd dinañ ànd kon jàpp naa ne tey jii ànd jot na casquette casquette politique UJTL bi ñu soloon dañ koy simmi fas yéene doon la fer de lance du parti de l'APR derrière notre frère notre père monsieur Siré maa ngi leen di maa ngi leen gërëm di ñaan aussi tamit ñu am ci ay ndam yu sedd guy guy guy merci beaucoup je vous euh, ay doomu Thiès di ay jeunes waaye bokkoon parti bu ñuy wax parti démocratique sénégalais dëkk Thiès est Thiès euh, nord du moins ñii dëkk Kër Cheikh ñii dëkk Ma El Hadj ñii dëkk ñu yore woon instance su parti bi ñuy wax JTL bu zone nord ñu dem waxtaan ak ñoom ci turu DG Siré Dia parce que daf ñu sant ñu yaatal mais daf ñu sant aussi ñu dem képp kon doomu Thiès nga vraiment te war a mën a apporter dara Thiès pour le développement derrière DG Siré Dia koo xam ne aussi mën nga indi politiquement dara euh, pour l'APR aussi ñu dem waxtaan ak ñoom c'est dans le cadre lañ ñëw waxtaan ñoom tàllal leen loxo ci turu DG Siré Dia vraiment ñu nangu pour lan pour jëmale APR kanam à travers le DG Siré Dia ànd ak ñun pour développer Thiès mais ànd ñun aussi pour porter le DG Siré pour ambition bi nga xam ne à Thiès développer Thiès mais aussi beneen ambition mooy lan aussi l' émergence et l'hégémonie de l'APR à loolu tax ñu ànd ñoom tey à partir d'aujourd'hui ñii leneen li ma ciy rafetlu aussi projet bi ñu waxtaan ñoom ñëpp il n'a jamais question euh, ci leneen lu dul jëf yu baax yi dee Siré Dia def ak yaakaar bi nga xam te ne ñoom en tant que jeune am nañu ko pour cette ville te ja ñu jàpp ne dee Siré Dia moom moo incarné yaakaar boobu loolu moo ñu gën a neex ci li nga xam te ni la moom la ñu rallier jóge tey parti démocratique sénégalais aussi ñëw biir APR te ñu leen di dalal jàmm te fas yéene ànd ak ñoom liggéey dans la ville de Thiès. waaw stratégie moom déjà Sénégal li muy wax rek ñaar la dafa am yi ñuy wax ak yu ñu dul wax li ma leen mën a wax mooy bu njëkk bi ba référendum bi passé aussi li am solo mooy déjà Sénégal tey danañu nañ ko ne yaatal d'abord yaatal bi moo indi tey ralliement bi nga xam te ne jeunes UJTL yu zone nord yi def nañ ko tey mais leneen li sant aussi mooy aussi ñu jublu baax ci inscription yi dans les trois communes parce que tey le seul leader vraiment qui travaille ci inscription yi kii liggéey ci trois communes yi pour lan pour accentuer pour euh, accentuer Euh, base APR pour pour euh, consolider base APR biir Thiès muy Siré Dia mooy lan aussi continuer di consolider base boobu dans les trois communes de la ville de Thiès waaye continuer aussi di démarcher di waxtaan ak ñi nga xam te dañoo nekk ci yeneen parti te am yéene te bokk ak DG Siré te fas yéene ñu ànd topp ci ginnaawam ñu ànd liggéey Thiès ci développement waaye ànd liggéey pour hégémonie APR biir Thiès ndax DG Siré Dia objectif am aussi mooy dëkk bi mu téye ko jox ko président Macky médias ça a été toujours été mooy que ne ñu jublu dans les trois communes ci inscription yi inscrire massivement nit ci trois communes parce que aussi chaque jour des Siré Dia macha allah électoral day yokku à Thiès commune dans le kon loolu aussi ci li mu war a traduire mooy que jeune Thiessois yi aussi yi nga xam ne am nañu âge voté te amaguñu carte d'identité amaguñu ñu yóbbu leen inciter leen accompagner leen encadrer leen ñu dem inscrire pour yokk électorat parce que moom li mu gëm. mooy en 2017 mooy liggéey loo xamante ne bii à Thiès Thiès waay dinañ ko ëlbati ko jàppale ko mu jox des président Macky Sall dem waxuma la dans la ville de Thiès mais dans le département de képp kuy responsable DG Siré Dia teew fi euh, suñuy mag suñuy xarit aussi la presse ñu leen di nuyu leen sant ci turu directeur général Pape Siré Dia tey nag bés bi bésu mbégte la ndax man balaa ma wax wax mu neex ma rek mu doon kàddu DG Siré Dia moom moo ne su ma ñëwee xaar ma wax leen ne moom DG Siré Dia ñaari objectif la fixé wu bu njëkk bi c'est l'émergence de Thiès parce que boo wax émergence su Thiès da ngay jëkk wax emploi booy wax émergence su Thiès da ngay wax développement jigéen ñi booy wax émergence su Thiès da ngay wax sport ak culture te loolu wax dëgg yàlla nit waxati waxati waxati le champion le maire c'est le DG Siré Dia bu ñu fa jegee mu sasu beneen sas ne nag moom DG Siré Dia ba président Macky Sall di taxawal APR ca Dakar mu bokk ci cadre APR yi njëkk ñu yóbbu ko frigo ngir président Macky Sall bokk bi mu bokk mu mag ànd bi mu ànd ak moom mu toog ànd ak président di ko jàppale di ko jàppale ba yàlla dogal président de la République jël nguur gi DG Siré di un cadre à yàlla may ko aussi lépp lu station boo xam ne cadre poste da koy yor ba directeur général ba président Macky Sall ñëwee mu nommé ko directeur général de la poste mu ne it nag cheminement boobu nag da koy continuer accentuer ko sur le plan politique wolof ne booy béy fooy tàmbalee mu leen say weew tàng ngay tàmbalee ñun DVF macha allah ñu ñooy wax mention spéciale au DG Siré Dia c'est un digne fils vive Siré Dia jërëjëf Siré ndax sutura na njaboot gi jàppale na jeunesse bi jàppale na lieu de culture jàppale jigéen ñi ci développement te loolu lañuy ñuy ràññee un digne fils te loolu taxawu na ko waaye nag loolu li mu jur mooy nag tey une base politique affective d'abord muy DLF. te wax dëgg yàlla élection yi passé muy euh, élection locale di élection di référendum bi daf ko prouvé ba mu ci jógee mu continuer cheminement à Thiès te loolu damay jël comme référence boo demee parcelle boo demee fayu cité Lamine cité Senghor boo demee Silma dem Daaru Salaam dem Ersan Sampaate Mbambara ba cité ouvrière amul benn quartier booy dem Thiès est te déjà si am fa base politique bu taxaw loolu it li mu firnde mooy élection yi passé commune yi fi ne dee naa ne Thiès est département Thiès moo ci ëpp voix kon loolu doon aussi deuxième phase wante nag troisième phase bi mooy li mu waxoon dene faal ma ne ko waaw mu ne ma je n'ai plus de limite à Thiès mooy que ne Thiès ouest Thiès nord yëpp dinaa fa liggéeyal président Macky Sall yaatal base bu APR mais jàppale askan wi ndax askan wi loolu ñuy xaar ci ñun homme politique yi du wax ay wax ay jëf la nit ñi talal bi ñu wax dañoo sonn ci wax mais dañuy jëf loolu mooy politique de rupture te tey ku dem Grand Thiès ku dem Jaxaaw ku dem Medina Fall ku dem Taxi Kaw ku dem Grand Standing li may wax ñeneen ñi di mer amul benn centre de vote boo xam ne tey leader taxaw nga ne gagné nga fa bureau de vote si Sénégal ñemewul taxaw ne bu ñu gagné bureau de bi du yow fa dëkk man la parce que dafa liggéey dans ces quartiers ba mu fa jógee nag mu ne aussi à Thiès dafa am ay doomu Thiès yoo xam ne sont des dignes fils de Thiès di ay jeunes di ay mag di ay jigéen am cër ci dëkk bi am yéenee dafa dëkk bi mais yàlla mayu leen même bu dee ci yeneen parte la ñu ne ñu am leader boo xam te ne war na tax ñu gis seen bopp ci politique war nañ am gis leader boo xam ne dina tax ñu nangoo def carrière politique waaye gis leader boo xam te ni tamit leneen jaral ñu ñaay Cees mu ne ma faal damaa bëgg saa su ne moo xam mooy dee leen yaatal ba daj Cees yaatal leen ba daj département bi yaatal leen ba daj région bi loolu it nag guddeeg bëccëg képp ku nekk ci ñun ci loolu nga ne ba yàlla def suñu xarit suñu frère François ñëw aussi à terre diir mu ñëw it vraiment mu ñëw ñu dalal ko ñu àndi liggéey parce que ñun dañuy faral di wax ne ki ñëw démb ak ñëw tey li am solo mooy ñun benn objectif la ñu am c'est Siré Dia mooy la koy jëmale kanam la koy may ndam te loolu François na année témoin loolu bu mu amee moom yéene am ay yoo xam ne dañu nekkoon UJTL aussi di ay jeunes nekk dans ci zone nord bi vraiment ñu dem waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom man li ma neex ci waxtaan bi yëpp dañoo dem waxtaan ñoo xam ne dañuy xamante waxtaan ak ñoo xam ne on se respecte waaye waxtaan ak ñoo xamante ne bi gëm nañu ne ñii bu ñu ñëwee APR ci DG Siré Dia nañ ko indil politiquement dara ci zone nord nañ ko indil dara ci biir commune bi parce que ñun damay faral di wax ne politique pëccoxoo cop sa mboxloo day bëri mais man Maodo Fall ma waxaat ko man ak képp kuy responsable boo fi indi day doon ko crédible doon koo xam te ne bu ñëwee nañ ko ñeme day doon ko bu ñëwee nañ ànd ak moom liggéey parce que contrairement à ce qui se dit APR Thiès ak DG Sénégal siis amu ci xatalaate amu ci ndax ku bëgg a gagné Thiès doo siis doo soxor doo xatal kenn loolu indi aussi bu ñu waxtaan ak ñoom ñu ne ñu faaru même bu dee gumba nga am ngay nopp waaye Siré Dia lu nit waxati waxati tey mu ngi sagal waa Thiès mu ngi jàppale waa Thiès ne ku bokk ak moom parti ak ku bokkul ak moom parti ñëpp ñu seede nañ ne tey Thiès. kii tax ñu wax APR kii tax Thiès waay tey Thiès méttiwul ci Thiès waay c' est le DG Siré Dia à travers ses actions dans ne kon Fall mbooloo ñu ne tàllal ñu loxo ci turu DG Siré Dia kon ñun dinañ jóge parti démocratique sénégalais ñëw ànd ak yéen liggéey jàppale DG Siré pour développement Thiès jàppale DG Siré Dia pour sur le plan politique jàppale DG Siré ci li nga xamante ni mooy ambition mooy ci kattanu yàlla moo xam ko fii. c'est en 2017 ci élection législative yi ñu jëm c'est de gagner les trois communes de la ville de Thiès massivement kon képp kuy ànd ak ñun na nga xam ne loolu mooy objectif DG Siré Dia parce que en 2019 ci kàttu yàlla DG Siré Dia da ne waxul commune ville Thiès waxul département Thiès waxul région Thiès da ne au niveau national ak diaspora bi moom DG Siré Dia il va participer massivement à l'élection du président Macky Sall dès le premier tour avec la manière te loolu daf ko commencé parce que Thiès ki fi yëngatu di tartari bay seen nit ñi di wax wax ju ñaaw tiit bay dugg ci àll bi di jël nit ñi di leen inscrire biir Thiès foog ne loolu mën na ko ciy génne Siré Dia da koo wéele te 2017 xoolal lay laal suuf te ma wax leneen. ku ànd ak Siré Dia doo ragal parce que doo ragal politique lii tax nit ragal ci politique xam la mooy ànd ak li réew dalay doy dil foo dem wax bu subaa du ko def loo dem wax du ko def lu mu dig nit du ko def lu mu taxaw jël engagement élection du ko def kooku mooy tax ab responsable ragal ñun waa Kër Siré Dia nit ñi dañuy wax ne lu tax ngeen am fit ñu ne ko parce que ku ñemee dañ laa déey ñun Siré Dia dañoo déey ne lépp loo xam te man Siré Dia wax naa ko j'assume te loolu diir ñu ànd ak moom loolu la doxee diir ñu ànd ak moom mu ne day jàppale président Macky Sall da cee taxaw amul ci xalaat ma yàlla amul ci demi mesure il se fait parfois violence pour la lan jëmale Thiès kanam parce que ci loolu rek nga mën a amee Thiès politiquement pour l'APR ci loolu rek la DG Sénégal mën a jox ndam li président Macky Sall kon xaar ñu ngi leen di wax ne leen ci turu DG Sénégal da ngeen di ànd koog yéen boo gisee ñu woo responsable yëpp parce que ñun lii tradition la ci ñun képp kuy ñëw ñëpp dañuy toog ñu dalal la wax leen ne ñun li ñu amal solo mooy képp ku jël engagement képp ku jël sa responsabilité képp ku taxaw déterminé au côté des Sénégal ci ñaar développement Thiès ak émergence su APR dañ ci ànd ak yow ko jeex tàkk parce que des Sénégal li mu bëgg ñun moom lañ koy doxal di ko xal te leer na ko boo gisee ñu ñeneen ñun ñeew ñu kenn. ñeewuñu kenn parce que dañoo mot am leader bu mot leader bi dañoo doon am leader boo xam kilifa la dañoo am leader boo xam te ni fi mu taxaw day dëgg mooy aussi santage bi ñu defoon Thiès jël dëkk bi tënk leen xoj leen ci wax loo xamante duñ ko def di jël nit ñi di leen guerre loo état bu fi ne. DG Siré Dia dafa ñëw ne man doomu Thiès laa comme ñëpp je vais Thiès aux côtés du président Macky Sall te il est sur la bonne voie kon xalaat li ngeen wax mooy vous les bienvenus on va continuer le travail ensemble on va continuer à mailler la ville de Thiès ensemble on va continuer l'essor de Thiès ensemble derrière le DG Sénégal et on va travailler et je vous jure on va se battre pour ça billahi wallahi c'est qu'en 2017 cette ville nous la remettrons au DG Sénégal et il la remettra au président Macky Sall. Parce que pour moi, pour nous, LDS e Sénégal, li ma waxoon keroog ngoon ba rek guy guy daal day bëri coow waaraaraaraat lu ne dina ko wax mais xoolal adduna lépp loo gis dafa am limite lépp loo gis dafa am sommet te politique coole fi rek décadence bu ñëwee coole fi ne da téye da nga jafandu di nga indi galgal mais réalité yi mooy tey Thiès Thiès waaye ñoo won ginnaaw sa Seck dem ànd ak DG Siré Dia et aujourd'hui sans cette illustration fi may terminer nag mooy ñi leen ñu ngi ci ñu leen ci lancé waat appel di ñaax responsable yi c'est de continuer les inscriptions parce que aussi ba le 30 incha allah juin dañ ciy liggéey te suñu frère zone nord yi dañ ci ànd ak ñoom suñu frère zone ouest yi nañ ci ànd ak ñoom suñu frère yi zone est nañ ci ànd ak ñoom parce que DG Siré Dia lépp loo xam te ne dafay mbiru politique phase bu ñu ne bu ca tolloo la mu ca war googu waa këram dañ koy def parce que ñun naam lu ñu gëm seul le travail paye te yàlla du bàyyi kii fay ñàkk fay kii jëf di fay kii wax di ñaax di wax rek sa ne règle rien Thiès n'a plus besoin de ça Thiès soxlawul leader boo xam ne da nga naan su ma faloo su ma falowaatee soo leen ma falee waaye ki fi ne yàlla jaarale ko ci moom muy Siré Dia moom la yàlla fal Thiès tey moom la ñuy jàppale ndax Thiès dafa bëgg jëm kanam on n'a amuñu taawu xaar ay cinq ans dix ans teew mu teew la ñu gis te kooku c'est le DG Siré Dia te on va continuer sur cette lancée di wax ne aussi réew mi tey ñu bëri ñu fa bëgg nañu rejoindre la paix à travers le DG Siré Dia ñu bëri ñu fa bëgg nañu rejoindre la paix à travers le si Siré Dia mooy profiter ci occasion bi di leen lancer appel ci ñaar. bu njëkk bi ñëw leen déedéet la déedéet si la pour jëmale Thiès kanam beneen bi ñëw leen jën jeune Thiès yi gëm Thiès te bëgg cees avancé topp ci ginnaaw DG Siré Dia pour def carrière politique bu seen à Thiès fexe aussi nu ñu jëmalee Thiès kanam à travers le DG Siré fi may terminé mooy responsabilité taw yëpp may jël seede xaar ne li ñu waxante woon ci kàttanu yàlla nañ ci taxaw nañ leen yaatal nañ ci ànd ak yéen li ngeen waxu waxoon ñun amuñ ci dut amuñ ci sikki sànq ne di ngeen taxaw di ngeen ci ànd ak yéen parce que ay gor lañu te bu ñu xamante du tey te lii ñu def fii on va continuer ça des de réew mi boobu venir bientôt incha allah pas des moindres nag ma wax ko fii presse baa ngi toog parce que aussi nit ñi li wolof di wax wel di gis bokku ci mën a a ju ne yow laa ko gën si la ja waa Thiès ñoo ne yow la waa Thiès a ko on va continuer di maye on va continuer dañuy déjati waxuma la décroche dañuy déjati dañuy jëli parce que fu nit ne doon Thiessois ñu jàpp ne mën ngaa apporter des synergies ñaar lu jëmale Thiès kanam su ak sur le plan politique ñun dañ la jëli waxtaan ak yow ànd ak yow ku ci nañ jox la cër ba sëkk ndax kilifa bi ñu àndal dañoo jox cër lu ñuy doon doon ndaw des synergies dañoo jox cër jox ñuy responsabilité ñun ñëpp ñuy toog fi kon on aussi ñun ñu yaatal ko on se ñu jàppale ko te fi may terminer daa am lu may déplorer mooy que ne aussi xaar ce matin y a eu quelque yu am des gens aussi ont tenté de saboter seen ñëw mais li ma neex ci wax ji bu ñuy saboter ñooñu damaa xam ne li may wax ku mënta gagné bureau de vote mënoo ñoo tàlleel mais li ma ci neex mooy li ngeen leen tontu nekk ngeen fi des années woo ngeen ñu ñëw ñu mais Siré Dia moo ñu doy moo tax ñu ñëw kon loolu xaal jëmu rafet